ginnaaw bi ñu raafalee mboolem bureau wat yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké grande coalition wallu Sénégal ca njiit la Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ànd ak Serigne Assane Mbacké ak ki nga xam ne mooy Cheikh Thioro Mbacké ñu jóge fi nga xam ne mooy diwaanu Touba Mbacké dem ba Mbacké Bawal fu ñu romb rek nit ñi topp leen bi ñu àggee ba Mbacké Bawal yëkkati nañ fa ay kaddu Cheikh Abdou ak ki nga xam ni mooy seex Thioro yëkkati mooy sant population bu Touba ak di xam ne victoire bi peuple bi ñoom ñoo ko moom yaakaar bi ngeen am si ñun danañu fexe fexe ba duñu ko tas engagement yi ñu jëloon ak yéen danañu ko fexe ba di ko respecté mooy waa Touba ak Mbacké tey tànn nañu gaye nañ Touba gaye nañ Mbacké gaye nañ Sadio tey ba cekkeen mooy war na ne léegi département bi mi loxol Wallu ak Yewwi xamante ñoom la ñu àndal ñu fal ñu dañuy fas yéene incha allah mottali li nga xamante ni moo yéene bi am pour askanu Touba ak Mbacke gis seen bopp ci assemblée nationale te jàpp naa ni cohabitation dana am tey jii ndax département yu bëri gaye nañ ko dañu diaspora bi yaakaar naa ni liñ doon wax sénégalais yi tax na projet boobu noonu moom la ñu gëm mooy Macky Sall moom kenn waxu mandat Macky demal Sénégal jeex na ñoo ko yaral. situation yàlla fekk askan wi jeex na situation tubaab bi nii lay mën a mel. seen nelaw yi tey. non situation nii lay mën mel ndax tubaab ay gor ñoo fi dëkk te def bu yàlla sax ñu wane ne ay gor lañ tey juróomi député yi nga xam ne nag moo am fii yëpp jàpp ni ne intercoalition Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal ñoo ko yi muy ndam lu yaatoo yaatu loo xam ne am nañ ko ci diwaanu Touba Mbacké Touba Mbacké Alhaji Mor fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom